Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 31 juillet 2024 suñu fa jógee dañuy dem CDC fekk ji fa directeur général bi di Fadilou Keita ginnaaw bi ko invité foofu ca Maroc muy benn coopération boo xamante ni moo dox ci visite de travail bi nga xamante ni di directeur général bu CDC amal na ko ca Maroc ci biir loolu nag kii di Fadilou Keita mi ngi xamal daal ginnaaw bu mu effectué visite de travail jëmale ko ci ñetti fan foofu ca Maroc ci invitation kii nga xamante ni mooy homologue malien euh, marocain boobu di Khalid Safir directeur général de la caisse de dépôt et des consignations désignation bu nekk foofu ca Maroc mi ngi xam qui dit di monsieur Fadilou Keita ginnaaw bi nga xamante ni di directeur général de xamante ni ñoo ci filiale bi nga xamante ni dafa bokk ci top management pour que nous menons relever défi bi faut ca CDC Mon mi di directeur général CDC en tout cas mi ngi réjouir jëmal daal ci accueil bi nga avec nañ forte mobilisation jëmale ko ci équipe bu CDC bi nga xamante ni tey ci seen bopp accueillir les différentes groupes yoo xamante ni dafa construire wu bi mettre en disposition plus plus documentation bu utile jëmale ko daal ci li nga xamante d'aller organiser une séance pour une présentation présentation la stratégie horizon 2030 à li nga visite de terrain yu ñu ponctué jëmale ko daal ci ay rencontres yu exceptionnelles mu doon benn modèle boo xamante ni CDC moom ci boppam si la sukkandiku mu gis na daal bokk na ci yi gën a performant ci àdduna bi daal di tabax li nga xamante ni mooy lu toll ci juróom-benn fukk ak juróomi at yoo xamante ni expérience la tey ñu a sukkandiku ci benn secteur économie marocaine boo xamante ni tey mën nañu jàpp lépp lu ko impacté dafa dem ci ay structures yoo lii di CDC dafa doon benn aménagement territorial ko ci financement lii di e. noppi ñu daal en place li nga xamante mooy benn incubateur boo xamante ni dafay bës ci accélérateur bi jëmale ko daal ci ay para parc yoo xamante ni offshoring lay doon ci secteur aéronautique ak li nga xamanteni moy agro industrie jëmele ko ci secteur automobile ak secteur portuaire jëmele ko ci infrastructure ak grands travaux yo xamanteni ni secteur bo xamanteni dafa soxal walu ndox assainissement ak secteur sanitaire jëmele ko ci walu banque ak hôtellerie mom mi di Fadilou Keita di directeur général CDC dafa compté ci ben centaine de filiales bo xamanteni dañu impacté ñom ñëpp ci secteur prioritaire yoy muy royaume chérifien bi di Maroc ginnaaw nak bi nga xamanteni ki di directeur général bi mom lepp luy yéné moy mu inspiré wu ci ben modèle marocain bo xamanteni ni na adapté wu jëmale ko dal ci organisation fonctionnement ak modalité intervention faire des CDC bi ñu ñoppi dal di orienter les sénégalaises. hautes autorités sénégalaises dal di viser ben articulation bu am intelligence jëmale ko positionnement stratégique ba noppi di soutenir politique bi nga xamanteni politique publique bi nga xamante ne dañ ko porté ci ay ministères yo xamantene agences ak ay programmes nationaux des ko ci ay administration lu ci ëpp ci ay comité comité dinañ leen mettre en place ba nopi ñi daal di porté projet de réforme interne bi ba nopi pour que ñu mëna améliorer efficacité accroître lépp loo xamantene impact lay doon jëmale ko dal ci ay intervention yo xamantene ni CDC dina ko en tant que directeur général de la CDC Fadilou Keita mi ngi remercier infiniment qui dit monsieur Safir di directeur général bu CDC bu nek foofu ca Maroc ginnaaw accueil boo xamante ni dalal na ko loolu amna signature bo xamanteni dina soxal ben convention de coopération diggante Sénégal ak Maroc mu daldi les viser lepp lo xamanteni da fay yombal bi partage d'expérience ak coopération diggante ñaari branches filiales yi muy ay entité yo xamanteni tay ay entité institution bi lañ